asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñeen sama bokki taalibe yi murid yi maa ngi leen di nuyu leen ziyaara bu baax di leen balu àq ci coono yi ak jataay bu yàgg bi di ñaan sëriñ bi tax mu fayal ñu leen xam naa day mel ne ki bi ak bëj tukki gi daf maa jàpp bu jàppale baat bi xaw mel ni lu tooy xaw mel ne lu xaw a soj moo tax yéene ji ci amoon ci waxtaan wi xam naa am naa ci tuuti gàllankoor waaye nag jàpp naa ne li ma ci waroon wax lépp sama sët bii waxal na ma ko euh, te yaakaar naa ne lim ci wax sax bu mu doon waxtaan it du ma ko mën a du ci mën a àgg ci leeral. Ah, tënk rek sant rek ñaan rek mu jeex mel ne jëwriñ leeral na lu bari sëñ Njaay mu yor kàddu gi it na lu bari ñoo ñëw fii Abdourahman ni am maam daam ñu ko xamee di sëtub sëñ Aliou Touré bàyyam jébbal na ko moo ki bokkam ma yar ko mu ne ci moom ma def ko ci mu ne fi si mu ne fii seen biir mm, ci moom sax laa njëkk a déggee daayira bi ak mu dogu ci ma ñëw fi mu xatoon loolu nag gannaaw bi laa doon yëg ni Moustapha fii la féete moom itam mu mel na kon samay njaboot rekk fi ne man sax nag damaa kër ba mu néew laay tudd sama samay njaboot loolu demee rek tax ma wax ko sax waaye man su ma sañoon sax bu ma nuyoo la kenn du ñu ne taalibe bi diwa man damaa gëm ne taalibe bi yëpp taalibe bi Sëñ Tuubaa boo ci bokkee foo dem koo gis rek jàpp na si mbokkum taalibe bi <laughs> loolu laa gëm dund waaye mu mel ne yéene yi ñu ci amoon yëpp ak liñ ma ci seer woon lépp mu dikkee it fekk naa fi laraw loolu ci gàttalu gi ak safoo bi ak taalibe gi ak teggiin yi ci góor ñi ak ci jigéen ñi amoon naa jafe-jafe léegi sax ndax njàngum xasida ni damaa baaxoo di ko déglu di wax wala may def dara ñaareel bi it bi koy jàng dafa ma dugg lool ba nag boo bëggee jox taalibe yi seen àq ci nuyoo bi te mën nga boole ñaar yooyu waaye dafa am lu ma fi dal lu yéeme loo xam xam ki ko def seetlu ko ana borom Amat Suleymaan bi kaay fii. <laughs> ndeysaan كيما تقود اهتمامي للرسيات أبدا لتستاد قلبي حسن ضاجتها وواجت للحدايا بالمبرات taxaw ba mu ne la jàngal bi it sàngam ma wax la li nga ci yéem ci xasida gi xam naa ne moom nii li ci xasida gi ak li ma jokkalee xasida gi xamu ko ba nag ma dégg ngeen di ma gàttal lu mu jàng ko te yëgut loolu loolu ma yéem xam nga xasida gi kër sëñ Chouaïbou bi la ko sëñ Tuubaa taalife <laughs> xasida gi raayee moom la sëriñ bi taalife ci jumaa ji sëriñ bi bi mu sancee Touba kër gi ci jumaa ji mooy kër gu mag gi moom la tudde Touba masalan fii fii sëriñ bi ne tey moo toll ak fi ab néegam newoon foofu bi mu ko sancee nag fi la taalife raaya mu teg ci diir bu gàtt sanc daarul xubboos di fa dajeeg nit ñi fa la ñaate kaafe ñaate mu def ba dem ca tukki ba bu nekkee foofu nag fi la taalifee xoqal bukaau ala saadatin amwaati tabkil araadi alayhim kas samawaati nga xam ne booba ma jaxate kala moo bind rek benn baat bind rek bind rek xoqa ci aw kayit yónnee ko ko ne damay xool kii ba xam liñ koy jiiñ ci boroomam nu mu ci demee ci xam-xam ak wilaaya ñoom dafa def testament rek ci moom nga xoq ndax dagan na ndax yey na ndax yell na bàyyi noonu rek bu ndaw li dikkee xëy fa gis sëñ bi sëñ bi génn lu ab téere ci biir bind ko ba mu àgg mu bàyyi fa foofu xoq bi war a ne maanaam rempli rempli diggante boobu espace boobu rek la fi bàyyi kon al bukaaw la sëñ bi tàmbale ala saadatin amwaati ah dagan na fi dagan na jooy nit ñi baax ñi ndax asamaan ah, ak ah, suuf da leen di kon man sax maa ngi leen di jooy <laughs> moom sax sàpp dafa ca nag wax nag melaw góor yàlla yi waaye ca melaw góor yàlla yooyu man damay wax ne sëñ bi yoonam bii la doon dund boole ñu di taalibeem loolu la doon wane a mel <laughs> waaw foofu tax maa jël nag li muy neex neex maa ngi ci amat suleymaan bi mu jógee Daaru Xuddoos sanc Daaru Raxmaan mu am tawféex mi fii sëñ Sohaybu bu nekk tey foofu boo demee tey jii ca kër gi dana yoon fa dimb ga ne woon dimb ga sëñ Sohaybu fi la daa jullee koor yi ak Tabaski di ko ci barkeeloo dimb googu fi la dalalee sëñ Fàllu ak sëñ Mudu Musaa nga xam ne Daaru Xuddoos la ñu jëlee jàpp seen loxo womat leen ba foofa mu dalal leen yóbbuwaat leen kon loolu am na lu ñu léegi nag bu nekkee foofu yi nag booba néewaana mu dafa rasuwaar ku amut xam-xam borom xam-xam yeeg nit yàlla yeeg yooyu dafa daa toogal di waxtaan ak ñoom ci xam-xam sëñ bi dafa organisé woon dawru xubóos la ko waaye bu soxlaa waxtaane xam ak yër lëf ci ay téere day dem kër googu daaru rahmaan ne fa ay naar di fa dal ñoo sax ñenn ñi naa ko daa ko wax daaru naar kër gi dalal naar yi fekk daaru rahmaan la tudd am bis mu toog fi nag daal di taalif Ahmad Souleymane bu noppee nag jox ko benn naar bu yox buuna ne ko yër ko buuna nag da jàng-jàng mu yéeme aswaajiha mir'atu aswaajiha abdaanuhunna naham isna ربانها يسري سراجا moo wax di woon jigéen àjjana ya nañu mel ba wax ne seen xar kanam ya mooy seetub seeni jëkkër buñ ko ne jàkk day gis seen jëmm yàlla la woon na gis لهن جسم رتيب خالص قدير لو ترى بجان للدجنات am na nag ku fa toog koo xam ne mbokk la ñu di ne Mbàkke Maane mag la ci suñu mënumbe dafa ko bàyyi bi suñ bi waxee lii di tagg jigéen ñi àjjana niñ nar a mel nga xam ne ku ci ñëwoon ci àddina boo sareti woon rek dexi àddina yi ak géej yëpp day sa suukar ci ne jàkk rek di gis sa bopp di leen tagg di leen wone loolu yëpp xam nga bëgg laa wax nag lan mooy seenu can wa maaruhunna wa mahruna tiqaau llahi fatiriha bi tawbatin li taxaati rafet rafet ak li ñuy yéeme yéeme genn can képp lañ am mooy ragal yàlla moo tax ñu jot léegi nag bi mu demee loolu rek mbàkke maa ne sëñ bi mbàkke sa borom may na la nga mën ma leen a won won ma leen ba mu xam niñ mel fii du ma ne la genn kër fii ci kër si isaaw bi gi ma dëkk foofu la ko sëñ bi wane jigéen àjjana yi mu dul gis ci jotaay nga xam ne ko ne xoolal fii mu xool fii ci suuf si jàkkaarloo mbooloo mu dul jeex mu mel noonu mu laa leen yéen a ñan ñu ne ko ñu ne soxna ko ñoo xam mbàkke maa mu daal di ximmiliku sëñ mu ñaan ko ci bopp bi mu nekkaat nit daal di toog tuuti daal di sëñ bi noppi naa gis naa leen ba noppi. en tout cas nag dama la laaj ndigal ndax sañ naa leen a nekk. en tout cas waaw bu la soobee. ma ne ko doy gis doyal laaj maa ngi nekk ñooñu rek. nekk na fi ba génn àddina mos a bu leen gisee ni leen war a gisee ñu dem sëkk ci ñoom. léegi nag xasida ji di suñu xasida ñu def ñu suñu kër ba di ci yéen siyaare ba ñëpp ma ko jàngal loolu ma yéen <laughs> masal ma ci juróomi bayit xóorul la dallaayi xóorul la dallaayi xiinun laa yuqaaribuhaa aynun walaa daranun daama naqiyaati xóorul la dallaayi abraa بلاد مقدرة تحت القباب من البساس المادي فوقنا القرابيل نورا انتبها بقل يخجلنا بدر يد فوق سماوات لهن جسم رطيب قالس قدر ضوء الترائب جال للبجلات waaw kon nag li ci mu solo dëgg dëgg dëgg ñu xam li mu sëñ bi nga xam ne kàttan ak pexe mayewu ko waaye moom mu jóge jëmmam xam ngeen ne bis ne dëmb la jóge woon Mbàkke Bari ci milaadiya bi le 10 tey jii la njëkk a yandu ci misaal tey jii la njëkk a yandu ndar ñu téye ko fa weer ko lëmbët di ko seet di ko sonal di ko xoqatal ci lañ ko booleeg gaynde ci lañ ko booleeg yu bari yoon ko fa def yëpp nee naa leen sëriñ bi jomam ak ngoram ndar rek doone ci ab takk tubaab bi bu fekkoon dene sëñ bi jubluwute liggéey li yonent bi ndar rek war na ci am war na ko mën a tubaab bi du dem fenn ndax dafa wax ne bu nekkee ndar dem nañ ba àgg ci xam ne liñ koy jiw lépp ak liñ koy wax lépp dara amu ci waaye mënatuñoo dellu gannaaw ndax mayu leen mën deltoo gannaaw da nga da nga def ñoo ko jàpp awilu mahal abraar xiina asir wa yanna alhuda anni hunaka asir masiimaat axyaari lillahi binnabi ñun àndal gisuñu ko ñu defe ne ñoo ko jàpp jiital ko te ma nga ma nga ànd ak abraar ma nga ànd ak axyaar loolu moo waral bi ñu defee délégation yi ñëw ci moom Amadou Ndiaye Mbaye jaaxa siis ak mbooloo mu bari tubaab bi nga xam ne ne leen bindoon fexe ba mu ñaan rek bindee rek nga bàyyi ko mu gan sëñ bi doon sëñ bi dana leen waxuma woon dama fi andi kon du ma wax dama fi jële waxuma woon ba ñëw fii du ma wax dama fi jële kon tubaab yi ko yóbbu ba ndar ba bëggoon mu génn géej mu dem ci géej gi. waaye sëñ bi bëgg dem ci géej gi sëñ Abdul Ahad daana nettali ne mm, genn góor gu sant Sourang teewlu métti waaye daal Sourang la sant sëñ Abdou sëñ Abdou Ahad xam na ko lool moo ko nettali mais de ci bureau bi mu fekke naa ko nee ko nee na ko xam ne aw fit mosuma gis ko nu toll nag moom aw fit ndax kenn nit fa ne ku ñuul kuy interpréter musée fi ñëpp borom garaat lañ te dañoo doon tubaab bu mu egsee ba ci salle attente bi te di jullee ñaar rakkaam yooyu ñaar rakk yoo xam ne man na bu ñu ko doon nattale quarante cinq minutes ndax baqar la fi jàng ak Ali Imran ci niñ ko nattalee waaye wax nañu bu noppee ba ne ana ki ma doon woolu lu may doyee tubaab bi bi mu jógee lu mu njëkk wax mooy bi fii fii tribunal la kenn amut sañ-sañ salf mbaxane waxuma laa kaala daal yebal ndaw ne ko dama julli kaalaam ngeen mun ko na gaawe waaye Seydou Lahad nee na góor gi nee na ko ñu doon seetaan ne ci biti ñëpp a ñu xool waaye bu ñu balaal bopp bi fop fop fop fop baaraamam teg nii jëmale mbaxana mi ak kaale gi nii nee na bépp dafa ànd jooy jëm noonu nee na ma xam koo jàngalaat wala bëti ko jëme nii bâtiment bu jógaat ba ñëpp defe ne bâtiment bi day daan suuf daa yëngu nee ñu ngeen ko andiwaat ci digg bi bâtiment bi dellusiwaat ci digg bi mën na meloon tubaab bi daa woo ko lii boppam bi kenn ko daal def da ngaa war a bind léegi benn rapport bu mën a xew daal fu mën a jëm nañ doon xamal na bopp moom bu lii laal moom ko man mii am moo tax waruñu bëgg tubaab man xëy na yéen a ngi tànn yéen da ngeen judd waaw boo fekk ne suñu fan dañ ci dam kon waaye li si am dëgg mooy ngeen xool si sëñ bi daj bu ñu koy daj fu mu koo xam ne martaba mu góor yàlla yëpp doon wut am nga ko tuubaa ba am ca lu kawe sa njort ba am ca lu ñëpp bëgg te nan ko amee amuñu ko noonu nga amee ko lu kawe sa njort ba noppi ne dama koy def laxasaay dem liggéey moom juróom-ñetti at yi mooy ki weer yu néew lu taxoon mu di ko def bañ kenn ci ñun dem sawara lu ñu ko war a fayee bi liggéey bi àggee ba sanaan sa dem ñëw ne ko dañoo woon ak sa borom nee na matal nga ko liggéey bi àgg na na nga waaj da dellu ci réew ma léegi nag lim la diggoon lépp dana la ko jox. waaye nag dafa am tuuti loo xam ne man maa la koy may sama borom dane jox na ma mboolem àjjane yi nga xam ne yooyu del nasaari buñ ko waroon dëkki te dëkki wuñ ko doomu aadama joo gis suñu borom bëgg wutal ñaari kër kër gu àjjana ak kër gu sawara bu jaamoo yàlla dem ci kër gu àjjana ga kër gu sawara ga widd bu jaamut yàlla wala yasubillah dem sawara kër gu àjjana widd léegi nag moo doon yëngu dégg nasaani wedd gi ñu wedd yonente bi nañ ñu alxuraan nañ ñu yonente bi dafa def sa ñaari kër yooyu genn nga lay jëfandikoo nga jëriñ sa nga fa toog ñun ne ko ñoom seen kër yi dama la koy may rek ngir bëgg ci yow ndax suñu borom jox na ma ko te dama la koy joxaat waaye bokku ci li la suñu borom di sax dama la ko may rek waaye suñ bi xoolal suñ beeg jom joxaat naa la ko addiya. si naan am na ko am nga ci yoonu addiya. waaye man dara du jógee ci man di dellusiwaat ci man mu ne ko waaw mu ne ko am na kon nag dencal ma ko dencal ma ko bu ñu ajee ca bés ba koo xam dañ lay tuddoo te wéeroo ci li ma bëgg nekkul sama bëgg waaye amoo lu dul man man ngay tuddoo jëfe jëfe jëfe jaamoo yàlla da nga war a jaamoo yàlla defoo dara luy tax nga mën a am sa àjjanay bopp ba loolu am àjjana booba nag àjjanay gàcce moo ci sës mu jox leen ci ji. waaye nag rus naa jomb naa kuy wéy samay ndigal di bàyyi samay tere ma dala jox àjjana joo xam ne taxul woon ñu bind ko xool jën jom waaye naa ñu bëree bëri buñ jotee ci jooju ak jooju gàcce gi dañuy jëm dañ dugg àjjana rek kon nag garanti bi mu garanti képp ko yaakaar nga xam xëy na la ko gënal lépp nga mel ni mu bëgg boobaa nga ànd gaañu baax ñëpp. groupe bu doog suñ bàcc bu saak suñ maye suñ ummeeg suñ Lamine Gaye ak suñ suñ Jaaro Asan Njaay ak suñ Masamba Jóob ñëpp ñu naan du dugg doo àjjana nekk fi doom su loolu ma dàqal ñëpp waaye nag boo demul fa doog seet àjjana joone rek àjjana kenn du seeti kenn doo xam ko lu dàq dër duggal rek <laughs> li wér mooy ko yaakaar sëñ Tuubaa da nga dugg àjjana waaye nag àjjana gàcce mën naa moyu mën naa moyu te ab bu nag ñun boo doon njëkk ximte boo dee murid saadix bu neex sax ci yow àjjana jéeg ji Sëñ Tuubaa boo dee murid saadix bu neex sax ci yow kon nag ñun góorgóorlu bu baax tafay sëñ bi li ñu koy fayee mooy defar suñu jëmm yi ba ku bokkut ci yoon wi di yëpp yoon wi ngir ñun te sonn ci njaboot gi rawatina gone yi ndax ñuy évoluer yoon wi ñu ko Abdul Karim waxe yi ma ko doon waxal lépp maa ko wax lool man sax. naa kii ba fa am xar sawar day wax ni sax waaye jàpp na lii duma ko man waaye xam nga murid bu jàkkaarloo ci murid rek dañ koy soxor loolu mu may sax ma mën a ak yéen waaye loolu woon ak yéram sax wala xam ne ñii fi toog sëñ bi rek a di seen xol moo tax ma am cawarte ak mën a wax nii waaye li ma bëgg ñun ñëpp jaayanteeg sëñ Tuubaa rek yar njaboot gi wan leen sëñ bi te bañ leen a bàyyi ak jamono bàyyi ak jamono mooy bàyyi leen ak waxkat yi ak yàqkat yi ñu yàq pas-pas yi. ñu téyewaat gone yi te yar leen ci diine yar leen ci taalibe wan leen sëñ Tuubaa li ci des nag sëñ moom ku def la nga war a def bàyyee ko sa bopp waaye sëñ Tuubaa nag du ko ñuy toppandoo waaye ku ñuy roy la ñu ko Abdou waxe xam nga toppandoo sëñ Tuubaa mooy lana dem ba ci tefas ga nga ne da dugg ci biir julli fi ñaari rakk boo koy def rek jën yi reere la waaye roy sëñ Tuubaa nag mooy lan lu ñu roy la woon yonent bi ëpp ëpp ëpp jéego boo nee ci am rek mu doy ci bëgg yàlla ci gore ci lépp tey rek maa ngi koy nettali ku bokk sëriñ bi day am jom te gore day am dafa nekk njëriñ am koo xam ne tubaab bi da koo jàpp woolu ko mu rëcc ñëw ba ci sëñ bi naan tubaab bi dama doon woolu waaye fexe naa bu rëcc sëñ bi nag boobu ñàkk jom bi ko ci man te jëliwul ko fii ci sama yar ànd na ñoom juróom-ñaari at ak lu topp te mosuma leen ne fu ngeen ma jëmee mosuma leen bu leen ma def lii mosuma leen dama bëgg a te dañ maa tooñ te dem nañ ba xam ne ñoo ma tooñ te mosuñu dégg ma wax. dellul ba ca ñoom nga dellu ne maa la yebal boo demee ñu téye la ba noppi ci yow nga door dellu sa soxla xam ne day da ngeen téye loo yor loolu ak ñàkk jom rek la doon kooku daal di jaaw wax. ñu fas yéene moom ak jaamu yàlla la koy def bu doon buñ ko tijjee sax ba am ndax ndigal li sëñ bi. bu ñu jëlee tubaab bi xool ko ne ko yow yeneen téye yoon dem nga rëcc mu ko nag loolu mu ne ko suñ tubaab moo xam ne damaa ñàkk jom naa jël si ci yéen ba ngeen noppi ci man ndax loolu jëlee ma ko ci biiram mu ko lee dama gën a ci dama nañ la dem du mucc kon taalibe bi Serigne Touba noon lay mel day boole jom ngor fit xam ne kim am kenn du ko jot ci loolu waaye na ko roy ci loolu lii lu mu ci am jël. nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey moytu tooñ tey jéggile te yaraat gone yi rek maa ngi ci institut bu baax a baax na yaraat gone yi ñu fi am ay doom mais góorgóorlu ñoom ci jàngal leen seen bu baax a baax xaw ma seen i waajur daañu nangu yu jigéen ñi wala déet waaye li mooy ku fi fer rek ñu yóbbu Sénégal bañ toqi la ba jàngali ba nga xam culture bu senegal ak culture yoonu murid ba dëgër ñu doon la indi fii waaye yar fi sa gone daanaka mu du tubaab dañu bokk dëkk ci kër gi du wax wolof. xam aaday murit waxam aaday lislaam daanaka genn wàll tubaab lay doon bu màggee yow ndax boo demee ba bàyyee ko yëf ndax li nga yoroon ba mu ba mu jot ci boo ko joxee dana ko yóbbu fu mu ko yóbbu lu ma bàyyi xel la ay bis bu ay waxtu lay am ci diine ci lañ koy jàngal ci diine ndax loolu doy day am ay at ja wala ca école arab ba wala école alxuraan ba xam diineem xam xam yoon wi bu ca noppee fu mu dem mën a jaxasoo ak ñoom. waaye jëkkalante ak jamono jëkkalante ak wërsëg jàpp ne doole ji boo ko defee loolu ña boo ko yóbboo ci ñoo ñàkk nga ko wala li war a jàng ci tubaab bu ko jàngut liñ ci bëgg doo ko ci am léegi du mën a aw yow xam nga gone ji yaa koy jiitu wala moo lay jiitu li lay seen borom sant def ko li gis nga bàyyi ko yàlla xamal ko diinam te yar ko ci diine yar ko ci teel bi na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax jamono ji yàqu na yi yàqe bari na nañ fexe ba jëkkalante gone yi kenn ku ne moom man ngaa góorgóorlu ba mucc ku anfusakum wa ahlikum naar waaye fexe ba sa njaboot mucc nag mooy coow li waaw ci góorgóorlu bu baax a baax di gërëm taalibe yi bu baax a baax xasida yi ma fekk sedd na sama xol lool taalibe ma fekk sedd na sama xol lool soññee daa mënta ñàkk waaye fekk naa leen ca yoon wa waaye maa ngi tàllal samay loxo Sëñ Tuubaa nag leen ñaan mu xaasal leen ngeen sax ci sëriñ bi bañ a boole sëriñ bi dara sëñ bi geesu leen bëtu yërmaandeem boobee ni ma ko waxee sax Mouhamadul Mountakha bi may ñëw donc maa ngi dem ci taalibe yi seeti leen defal leen soññ leen ñaanal leen waaye nag damaa bëgg xool la sama bët yi moo demee xool leen jox la sama loxo bi ma demee jox la seen loxo Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne dañ ko rëcc ci taalibe radiyallahu anhu nafaana barakaat yi dafa am bis suñu Usmaan biso di gis rek fu mu fu raxasoo rek naan ci ndox mi mais wasa bi lii moom xanaa dafa daa am lu muy mu déedéet déedéet loxo boobee rek la loxo boobee mu saafonteel la nag moom lay dabawaat maanaam lii junni yoon sëñ bi waxtu wu ne bu raxasoo te ne naan ndax bëgg mu topp ndox ma ndegam sëñ fa lay def naan asa keneen kon nag pas rek ci am solo pas-pas bi rek ci am solo ni ngeen xam ne moom mi fi nekkal sëñ Tuubaa mi ngi leen di xool bëtub yërmandeem mu ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di ñaanal kon nag fu ngeen ne xam ne ne sëñ Tuubaa ngi ànd ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.